bismillahi الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه وخديمه ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi siyaare ñëpp di balu àq ñëpp di baal àq ñëpp di ñaan sunu borom ci yërmandeem ak ngëneelam ak ci barkeb barab bu sell bi nu nekk ak barab barkeb borom dëkk bi nga xam ne fi la nekk mu jégganu lépp loo xam ne dañ koo séq ak moom te defewuñ ko na mu taamu wuutu yi wuutuñu ba tey ci képp koo xam ne dañoo séq ak moom ba ay àq war caa war mu wuutuñu ca ba lépp rafet wa dalika alallaahi yasiir waxtaanu tey wi nag gannaaw danoo nekk ci weer wi weer wi di weeru Cheikhul Khadim di sunu weer waxtaan wi du mën a génn xew-xew bi ci nar a xew muy li ñuy wax màggal gu mag gi waxtaan wi nag dañ koy jéem a tënk ci ñeenti tomb bu njëkk bi mooy lenn ci liñ mën a wax ci sabab ci màggal gi tombam ñaareel bi sabab soosee ba ca sëriñ bi dugg lenn ci ay coono yoo xam ne jànkoonte na ak moom ca lan ca mën wax ba ca des yooye ba mu ca jaaree ba noppi lan la ko ca sunu borom defal ci loo xam ne ci làmmiñam ci mbindam lañ koy jële te mësu koo defal kenn tey dootu ko defal keneen ba ca des mooy bés bu mag boobu bu dikkee nan lan ko war a fonke nan lañ ca war a def lu ci nekk nag ay junj lay doon ndax waxtu wi du maye ñu xaabaabal ca na mu jaadoo mu mel ni bërki démb rekk lañ jógee ci bés bu mag boo xam ne mooy màggal gu njëkk gi muy bi nga xam ne sëriñ bi daa ñibbisi jóge njaarim ñibbisi ci dëkk bi te cheikh mouhamadul moustapha radiallahu taala anhu def ca la mu ca def defal ko la ko gënaloon ba lépp yemb muy bés bi nga xam ne ci la wàccab liggéey jàkkaarloo ak boromam nag mu war koo tàmbalee fay ab liggéeyam bés boobu bés gënu koo màgg ca lañ jógee ki démb rekk bés bi nga xam ne mooy ñëw moom day boo xam ne it moo ko waxaloon boppam danañ ca ñëw ca kanam waaye lan tomb bu njëkk bi mooy màggal gi lan ko waral lan mooy sabab si nañ dem ci waxi boppam moom ci boppam waxal ko boppam wax ne màggal gi li ko waral mooy tukki bi tukki bi lan ko waral mooy sunu borom ci boppam dafa am daraja boo xam ne da koy jox kenn ci jaam yi te itam sunu borom dafa namm jaam boobee di moom Cheikhul Khadim sunu borom dafa bëgg itam buñ demee ba ca bés ba nga xam ne ku nekk dafa day aajowoo ndimbal sunu borom may ko daraja mu dimbale waa këram bokk na ca itam sunu borom dëkk ba ñuy wax dawme nga xam ne kenn kuy xalaat lu bokk ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam nekku fa waxantuma di ko liggéeyal nag. man liggéeyal ko fa liggéey boo xam ne bu ràññu ko doon loolu sëñ bee ko waxal boppam sababu gaybatiya anna allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shaafian li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi dawme googe nga xam ne ab dëkk la ma ma fa Moustapha sallallahu alayhi wa sallam liggéey boo xam ne benn lay doon wala fi dawmi ma di ko liggéeyal daa dawman wa abadan kon loolu dafa leer loolu dafa leer loolu nag ab ab yen la boo xam ne sëriñ bee ko gàddul boppam ah sunu borom fekk ko ca loolu nag bala koo nangu munta ñàkk fu mu koy jaarale jaar-jaar yooyee nag mooy la mu daj lenn ca lañ ca mën a wax nag la ñuy tudd muy tombam ñaareel bi fii ci réew mi ba mu demee ndar am fa ñaa weer yu manqué tuuti wax na ci mbindam ne laaqaytu fii tilka al jazira fii tilka al mudda maa laa askuruhu taadduban maa xayri mashkur dun boobee ñuy wax ndar diir ba ma fa am daj naa fa loo xam ne duma ko tudd mukk ci sama làmmiñ ngir teggenante ak sunu borom mi nga xam mooy ngeen di ku ñu sant muy benn ñaareel ba ba mu demee ndakaaru guddi gëm fa njëkk am ñu dugal ko ci neeg boobee nga xam ne wax na ne ba mu fa duggee la mu fa daj ak la fa gis xelum doomu aadama muntaroot ne lii mbindéef mën na ko def def mbindéef waaye sunu borom ci kàttanam ak ci sañ-sañam daal di ubbi nee ca ca la mu ca wax yëpp waaye ba mu ca jógee day dem ba egg ci fu xelam na yar ci ci nee ak ak lam nekk nekk am muñaakun jiko doomu aadama gi day ñëw rekk mu xelam xalaat dem xeexak ak tubaab yi ci ay jaasee ki gobar waaye bu boobaa rek Moustapha sallallahu alayhi wa sallam mi nga ne moo ko tax a jóg ngir liggéeyal ko da moo koy dàkku rek ne ko ne ko muñal ida dakartu dalika almabita wa dalika al amira wa tasbita qaadat ila taaral ila aljihaadi bil armaahi nafsi walakin dabba an ilmaahi xew yooyu nga xam ne bu ci nekk sëriñ bee waxal boppam ci ay junj waaye ba mu demee ba Gabon nag def ci benn barab juróomi at yoo xam ne demoon nañ banaagu ay mbiram waaye am na ca ñetti at yoo xam ne nee daj na ci ay coono loo xam ne moom itam du ko wax waaye lu dul génne ak ruu ci jëm rekk loolaa ko gën a metti waaye dafa day taxaw wàqante géej ga ci boppam ndax moom xam ne ne géej gi mbindéef la ñaan sunu borom ma nga xam ne moo tàggataloon maam sunu Ibrahim sabaraam wa ba mucc na ko tàggatal géej gi ak waa géej gi ba mucc day taxaw waxante géej gi na ko xamal ne yow man jaamu yàlla laa boo xam ne yàlla rekk laay jaamu aji liggéeyal Mustafa sallallahu alayhi wa sallam rekk laa doon boo xam ne moom rekk laay liggéeyal te yow géej gii nag bul bokkaale ayaa baxru waxid laa tusallis fa rabbuna taala an taslis akrim bihi rabba yàlla benn buur la bul bokk ci ñiy bokkaale fakun daltiraabin musbidan min maxaafatin ladallaahi washhad annani abduhu sabbaa nanga nanga ma seede yow géej gi ne man jaamu yàlla rek laa bu koy jaamu kuy liggéeyal Moustapha sallallahu alayhi wa sallam bul bëj bëj mukk ngir mbir pexe mi néef géej gi daal ne teg ndax waxante naa ak moom ci ci ci ci pas-pas waaye foofee la ko sunu borom defal loo xam ne mësu koo defal kenn ko defal kenn lii jaada rabbi bil manasili la daa taxarrubi mutayiban lil xalada inni jahaltuha hadaya li sihaab radiya anhum man xamaani an sahaab aataytu sahbahu manasila ada fi ljannati allati ihtamat amman xada ba ba mu defee loolee liggéey ba sell cell ga ca war sunu borom jëflanteeg ñoom moom ca na mu toll mbooleem sunu borom dafa wax ne képp ku mu bind muy doomu aadama dala wutal kër ak xéewal ak këru nattu këru musiba këru mbugal te li ëpp ci bindee fi defuñ lu leen yóbbu ci seen kër yi xéewal ya te kër yooyu du ko bàyyi mu mu mbooy mu daal jël kër yooyu yëpp jox ko ko moom Cheikhul Khadim loolu wax foofu waaye ba mu ko ko joxee dafa jaar kër yëpp moom Cheikhul Khadim def ko addiyee Moustapha sallallahu alayhi wa sallam jox ko saaba yi seetal loolu waaye daf ne daf ne kat joxuma ko ko daal di toog sunu borom dafa jëflanteeg man ca na mu toll jël addiye ja fuulaat ko fël goo xam ne noonu la toll delloowaat na ko mboolem ñi nga xam ne kër ya am nañ ca te jaamuñ sunu borom jaamu gu leen ca dugal. seeni yool yépp mu jox ko ko nazaa lii adda ujuuril kulli law taabaduu wa daahum wa matalaw ujuuruhum law abaduu lii wusilat bilantihan min rabbina fa wasalat lam yakun mislu daa li gayriya wala yura li gayri farra man taqawala ñoom yéefar yooyee nga xam ne seen këri xéewal lu leen ci yóbbu te borom bi nee na du ko wàcc mu mbooy mboolem seeni yoon sunu borom jox na ko ko loolu musu koo defal kenn te dootu ko defal kenn kon kon loolu ay junj rekk la waaye bi nga xamee dem na nag ba del siwaat nag nga xam ne sunu borom fay ko rekk des mu daal di wax ne nag léegi dama bëgg lii ma defal mayit ma yeyoo ko sant ko cant goo xam ne dama koy dëkkee ndax bëggumaa doon jaamub yàlla boo xam ne damay nekk aw gëngal laka dahra yaa baaqi bila miryatin kulli wala ala al mawla bi abdin rabin kalli man du jaamub yàlla boo xam ne damay nekk aw gëngal yàlla defal ma ba ma ma ma ma ma rek ne defal na ma dama bëgg ma defal wan ko ne ko yeyoo naa ko lillahi rabbil alamina kulli walastu indahu bi abdin kalli sunu borom defal ne ko waaye moom it defal na sunu borom loo xam ne dafa bëgg sunu borom xam ne yeyoo na lim ko defal mu daal di ñëw nag ne kon bés bi bu ñëwee damaa bëgg ñu santale ma ci yàlla koo xam ne sama mbég sa mbég la na nga ma ci sant yàlla santale yàlla ci laam ñu sëriñ Habibullahi Mbàkke mi fi nekkoon ilimaan yàlla na ko yàlla dolli leer fa mu ne moo ma wax ne sëriñ bi moo wax ne nañu ko ci santale yàlla moo di jàng alquran asalaatu ala nabi listixfaar ak xeeti zikar yi ak bernde sëriñ Abibullahi moo ma ko wax ni ci làmmiñu sëriñ bi la ko déggee nee na bernde bi sax dem na ba àgg ci ne koo xam ne sa loxo jutu sa gannaaw na nga dem ba fekk fu ñuy bernde ngi xéewlu ca te am ca pas-pas bu boobee bu boobaa da am ci yool ba berne ba nag bu ci kenn xeeb ganaar bu ci kenn yéem gëléem bu fekkee yàllaa tax moom nag loolu ca la nekkoon sant yàlla ak di berne loolu ba mu jógee rek ca la nekk shukru ilahi xaana fi turaabi baada jamili sabr fi ixtiraabi léegi nag fi ma jaar fépp jaar naa fa borom bi jox na ma lim ma jox kon bi ma desee ci sama réew sant yàlla jot na shukru ilahi xaana fii turaabi baada jamili sabri fi ixtiraabi gannaaw bu ma muñee muñ goo xam ne kenn mësu koo muñ xaawaltu shukrallaahi inda baladi wa kaana lillahu wa safa xaladi maa ngi jéem a sant yàlla ci sama suuf gannaaw bu ma dajee la ma daj ca tumuraanke ga xaawaltu shukrahu lada turaabi baada almuqaasaati lada ixtiraabi gannaaw njibbi naa ci jàmm fasaa yéy na sant ko cant goo xam ne dana ma fàttale ko fàttale lool tumuraanke ga ansaani yamtidaahu nadbin atidi jumlata ma laaqaytu naxwa matadi tagg gi may tagg Moustapha sallallahu alayhi wa sallam fàtte loo nga xam ne daj naa ko ci jisira matadi foofu ca Congo Brazzaville lam daj kenn daju ko اجا الحسابية ما لاقيته ومضى عند النصارى غدا يوم المواسين li nga xam ne dañ naa ko ci daju ko naa ko def muy sama xisaab yowmal qiyaamati bu ñuy peese jëfi jaam yi ndax ñëpp la ñuy seet si i jëf waaye na nga ma defal man seet sama jëf muy la ma dànkoonte ca ya loola nay sama seet sëñ bi moom sant yàlla daf ko def muy warugar mboolem mu àllafaat yi li ci ëpp boobu da ko cay sant soog a dem def la muy def suk as alhamdulillahi alhamdulillahi haqqil mubin hamdan li musilana wa daay hamdi wa shukri liman kuli bi saara mboolem xasida goo dem rek boobu da nga cay fekk alhamdu wa shukru ah udiimu shukrallahi lil jinaani bila taxarurin wala udwaani man sant yàlla du ko def tey bàyyi suba du ko def ci suba bàyyi ngoon du ko def ci guddi bàyyi bëccëg dama koy dappetoo udiimu shukrallaahi lil jinaani bila taxarurin wala udwaani lahu shukuriya ilal jannaati daaril muna wal amni wal minaati waaye lim ko sant sant ci ci santu xol santu làmmiñ santu cër waaye day dem ba nekk ay ay li yow sunu borom li nga ma defal ci may munuma laa sant lu ñu kon daal li may wax mooy rek yow yaay kenn ki nga xam ne àgg nga ci kawe foo xam ne kenn niroowul ak yow niroowul ak kenn hibaatuka lii aayat sukóoriya fil kunhi lakal hamdu yaa fardan taalayta an shibhi may yi nga ma may ci biir ak ci biti egg na foo xam ne xam na ne lottal na ma sant la waaye yaay kenn ki nga xam ne kawe nga ba niroowul ak kenn kawe nga ba kenn niroowul ak yow lim ko defal am na ci loo xam ne bindéef yépp danañu ko xam am na ci loo xam ne moom rekk moo koy xam mook boroomam am na ci loo xam ne boroom rekk moo koy xam ci ay xéewal ak i mbég madda liya alxaqul mubiin maa lil bariyati yabiin wa ma li gayri laa yabin min busharin wa niami yàlla mi nga xam ne mooy dëgg te lum def rekk mu sax jox na ma loo xam ne ci ay mbég ak xéewal dana bir bindeeyu àdduna yépp am na ci loo xam ne ma rekk lay bir baraka lil xaqul mubiin fii ma li xalqihi yabiin wa fi lladi laysa yabiin li gayri daatil munami yàlla barkeel na sama mbir barkeel goo xam ne am na ci loo xam ne bindeef yi danañ ci teg seen bët waaye am na ci loo xam ne moom yàlla mi ko def képp moo ko xam waaye kenn xamu ko te loolu bés bi dana ko wane moom moo woote sunu borom may ko tawfiq ñu wuyu na lil quluuba wal abdaana man qaadali fii baladil buldaana layyalani alquluuba wal abdaana man raada lil muluuka wal awtaana sunu borom moo ma nooyalal xol sunu borom moo ma nooyalal pays sunu borom moo ma wommatal pays ci sama dëkk bi manaafi al bilaad alaanani alquluuba wal abdaana man xaada li fii baladi buldaana mag bis bu ñëwee soo fi ñëwee da gis ku ne da gis lu ne waaye nanu fexe ba sëriñ bi woote ñëpp wuy ko ñu nekkal ko ci li nga xam ne mooy ab sagam di sunu sag di sunu njariñ mooy bu nu weesu ñeent yooyu yi jàng alquran salaatu ala nabi listixfaar xeet dikkar yi ak bernde ak bernde ganaaw bernde bi moom ku dem ba sa loxo jotul sa gannaaw nga dem fekk fu ñuy bernde ngi xéewlu ca te am pas pas sunu borom dalay jox ci yool bi loolu kooku kooku nag yomb naa yomb naa jëriñoo wax yàlla waaye def ci loo xam ne wax ci loo xam ne bu sëriñ bi dikkoon dangay ngay samp saw xel te kenn ku ne yaa gën a xam sa bopp bu yàlla wéyee kenn ku ne yaa gën a xam sa bopp la ngay wax mu wóor ne lii bu sëriñ bi teewoon dalay wax jërë jërëjëf la ngay jëf nga xam ne bu sëriñ bi teewoon dalay wax jërëjëf kenn ku amam xel dofóor xam nga ko waaye di def loo xam ne waxuma la sëriñ bi waaye sa mokkum taalibe doomu boo ko si noon da ngay daw nëbbutu bu la ne yaa def lii nga nga di ko miim bu la ne yaa wax li nga di ko miim loolu ko ànd ak am xel waru koo def nañ fexe ba dim ko bëggee ñu defee ko noonu ñi nga xam ne ñooy ay gan yu fii ñëw buñ dikkee ñu won leen ci dëkk bi loo xam ne dañuy yéemu dañuy yéemu buñ buñ demee am luñ nettali buñ bu beneen ñu indi ñeneen ñooñu buñ dikkee gis lu leen yéem loolu mooy mooy mooy nekk ci digg siraatal mustaqim ndax ci la sëriñ bi nekk li mi li balshatin min asasin taqabbala wa bi siraatihi kafaani subula asasin ci la tàmbali woon liggéey bi ci bal balshatin bi nga xam ne nag mooy atum Cheikh Abdoul Ahad Mbacké radiallahu taala anhu te itam sëriñ abi wax na at moom ci njëkk a wax lu jëm ci bés bi bii balshatin te loolu day dëppoog li muy waxal boppam li balshatin min jay sachin hawaytu fillaahi wa rasuli ma nawaytu jeysetin laa laa tàmbali nag ba assasin la tàmbali liggéey bi waaye jeysetin la tàmbali dem ci géej gi ba ba ba jaar fam jaar juróom-ñetti ati géej yu tuuti juróomi ñeenti ati gànnaar juróomi ati ceen ba ñëw njaareem ñaareel bi atu njaareem njaareem la sasin la nag ca bal sasin la wax loolu ne tàmbalee jey sasin ba bal jot naa làq naa li nga xam ne moom laa dul wut ci sama borom li balshashin min jayshasin hawaytu fillaahi wa rasuli ma nawaytu kon kon bés baa ngoog lee agsi na kenn ku ne laxasaayu raxas sab xol ba mu sell ndax xol bi moom bu fekkee sell nag lépp mën naa baax lépp mën naa baax ñu teg ci foofu cër yi gàll leen li nga xam ne àttan nañu ko ci ak jaamu ci ay jàng xasaayit yi nga xam ne dafa fees dell ak cant ak i ñaan ak i tagg Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ndax ndax Cheikh Saliou Mbacké radiyallahu taala wax ne sunu borom kenn jaamu woo ko lu ëpp ñaan ko ak cant ko ñaan ak cant kenn jaamu woo ko lu ko ëpp te loolu sëñ bi def na xasaayit yoo xam ne lam ca wax ci ñaan xelum doomu aadama munu caa àgg lam ca def ci ay cant xelum doomu aadama munu caa àgg kon nga tànn ca xasaayit yooyee gannaaw boo jàngee alxuraan ba ya nga xamee dafa lamboo ay cant ya nga xamee dafa làmbooy salaatu annabi ya nga xamee dafa lamboo ay ñaan nga daal ciy def ba ba sa ba sa wàcc soo ko defee nag bernde bernde bi nag noom ni ko waxee rek kenn ku ne yaa xam sa bopp yaa xam la la bis bi jaral yaa xam la sëriñ bi jaral te lu la jaral rek jar na lu ko ëpp ki toll ci ganaar na def na def ganaar ki toll ci gileem na def gileem ki ne ci diggante bi ne ci diggante bi ka xam ne dem na te loxoom jutu gënam te loolu loolu barke barke barkeelub bés bi barkeelub sëriñ bi ngëneelu sunu bam tabaraka wa taala dem na ba àgg na foo xam ne loolu kenn ku ne mën na ci yëngu def sa feeñ ci sa pas-pas kon nanu góor góorgóorlu bu baax a baax ñaan kii nga xam ne moo nekk ci kanam yoon wi li di si Sidil Mokhtar woote woote bi sunu borom gën koo may doole gën koo may wér ba ba ba lépp lu mu naal ci yoon wi naan ko ci lislaam ji naal ko ci dëkk bi lépp sunu borom defal ko ci lu kawe njortam te loolu yomb na sunu borom te mën na ko yàlla na ko def bi barke Cheikh Ahmadou Khadim bés bii nag mën naa am yaakaar ndax gaaw baa dellu siwaat lim bi moom bi at mu ne mu dellu si waaye gaaw baa dellu gaaw ba dellu siwaat di fukki fan ak juróom ñett nag loolu li muy takkaraat bariwul kon lu ci waaye naal te am pas-pas sunu borom mën na ko cee defal gannaaw buñ ja buñ jàllee bisub tabaski bi nga xam ne ren sunu boom def na ci loo xam ne it mën naa rafet njort Sénégal gi gépp Touba ak Sénégal gépp mam nag Makkatul Mukarrama ak Madina ak Saoudiya gépp aalamul islam lépp benn bés loolu ku ko fàttaliku bëri bëri bëri bëriwul te sunu borom def na ko ren ci ci taw fii xam kon loolu lépp ay gaan nga yoo xam ni mën naa tax nit ñi rafet njort yàlla na sunu borom defal tawfiq ba bés bi ñu dugg caag ak jàmm génn ca ak jàmm defee ko na ko borom bis bi bëggee wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.